سعد من في دهر العظم زره زره إن جندا من خياف قد سرى هذا قلبي من خيال قد سرى قد سرى وسطاني قد جفا طيف الكرى قلت أين مني أين منه من اللقاء من اللقاء سنغال أين موضوع أين ميسي من اللقاء من اللقاء سنغال سيدي téléspectateurs yi seetaan télévision Mbour ñu am mbégte ak kontante dajawaat ak ci seen euh, rendez-vous bi nga xamante ne rek mooy euh, doxantu célébrité waaye tey dañu ñëw fi nag euh, ci Tiwaawan ni ñu ko defee woon ci Magal Touba ñoo ñëw nañ fi ci dëkku Seydi Hadj Malick waaye bu ñu ne dëkku Seydi Hadj Malick nag tubaarkaal la ñu ñëw nag fi nga xamante ni wax dëgg yàlla fi la ñu war a ñëw ndax dañu ñëw seet si koo xam ni suñu papa la suñu nijaay suñu tonton di ko yàlla baaxal defe naa que réew mépp sax ñoo dajaloo ni dafa baax te ku ne dafa baax rek repère nga exemplaire nga waaye tamit fa mu bokk la ndax ma nga juddoo dëkk bu ñu naan wi louis euh, bàyyam ba amat may Maodo moo daan jottali waa kër Seydi Hadj Malick Euh, Ngolé Tall Niang yaayam wax dëgg yàlla nekkoon jigéen ju baax nekkoon référence waaye defe naa tey bu bu bu nekkee euh, nii rek moom daal ci yoon ci yoonu waa kër Seydi Hadji Malick lañ ko mën a xamee mooy suñu bàyyi Alaaji Mansour mbay ma jaaga ma jaaga Fatim Ngoone te ñu am mbégte seet si ko fi nga xamante ni mooy Tiwaawoon ci dëkkam bi nga xamante ni fi la fi la fekk baax Papa maa ngi lay nuyu Mbaye. maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di leen ndokkeel ci guddi gi jum. mi ngi gudd rasulullahi sallallahu taala alayhi di jaale it sunu mbokk mu baax mi fi jóge maam bu ndax bàjjanam mooy maram Sidi Kunta sunu baay Sidi Abubakar dencoon na ko di ko jaale Sénégal yëpp di jaar sama doomu turando mi xamante moo toog ci xilaafu Cheikh Seydi El Hadji Malick li Sidi Aboubacar ibnu Alaj Mansour ak rakkam ja nekk ca ndakaaru di Seydi Ahmed ibnu Seydi Aboubacar ak ci ki ma jógee léegi muy Papa Malick ibnu Seydi Aboubacar ak Maodo si ibnu Alhaj Abdoul Aziz ak seen rakk yëpp di ziar sang ba ca Touba di sëñ Muntaxa di ko ak di ko ndokkeel moom itam ci li mu jógee di bés boobu xaadim rasul santoon mbokkam ya taalibeem ya te ne doo nga ci bés bu mag nag bés bu xam ne kenn moomu ko kudu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gàmm amoon na fi waaye nag gàmm bu siiwee du kenn ku du sunu maam Cheikh Sidi El Hadj mag ñu baax ñi nee nañu sunu maam ju baax ñi alxaaj noo daan gàmm waaye kii def daan jël xaaju kaw kii jël xaaju suuf nee nu ñëw na Tiwaawan di gàmmu na fi waaye booba amagul autorisation tabax jàkk en 1902 la tabax jàkk di woo nag mu xaddamam yépp pour mu ñëw ànd ak moom màgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nag amu ko am na gàmm gu xam ni place ba dafa xawoon wéet mu wax ca gàmmu ga sama baay Amadou Mbaye Maodo boobu mooy jottali ni ko Amadou waxal moom mbooloo mi ni képp ku ma may tariqa Cheikh Sidi Ahmed Tijani bu ca góor saane ca jolo bëgg naa ñëpp di ànd ak man ñëw di ma màggale ki xam ne moom rek moo jara màggal muy rasulullah sallallahu alayhi wa booba nag ci la Tiwaawan am envergure bi ci gàmmu مقدمة يب دوكو فيكس لنا مو عندك مبكة على جروان أك مقدمة أك نم سيد برا يوبي أك قاكم شيء مجيل ورد شيء طريقة بيت ورد مجار سلسلة مجار تسمع بشخص الحاج مالك يوم يب نك دينيو دي ماجل سيرو صلى الله عليه وسلم بجوجو في عام 1922 ndax gàmmuwul en vingt 22 ndax mu ngi fi jóge juin ca gàmm nekkoon au mois d' octobre kon Sidi Boubacar moo gàmm ànd ak rakkam ja xaritam ba soppeem ba alxaaji Mansour mi ñëpp tudde woon inspecteur tariqa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ba ba xam nga bu gàmmu amee ba Sidi Boubacar toog ak alxaaji Mansour alxaaji Abdoul Aziz yaa ne yàlla yokk leeram mooy toog ci suuf ànd ak taawu Seydou Boubacar bu ñuy wax Seydou Jamil ànd ak ku ñuy wax Alaaji Mbay ak Paate ànd ak ku ñuy wax Alassane Diagne ak Mbay Fall ak ku ñuy wax Ibra Lo di toj mimiye sunu maam Cheikh Sidi El Hadji Malick Alaaji Abdou di ko woy ànd ak rakkam yeeg mbokkam yu baax yooya sëñ Babacar di waxtaan ci rasulullahi sallallahu su demee ba quatre heures du matin nu xam ni fajare des na weer des na deux heures de temps mu ni ma bàyyi leen rek sama rakk ji Mamadou Mansour loolu daal moo xewoon bu njëkk ca mag ña ba nu demee nag mu nekk nag ci loolu boo déggee daayira sëñ Babacar la radiallahu taala anhu moo ko formé en vingt 1927 booba li olof di tuddee booba xam nga tubaab bee fi noo fi ne colonisé woon waaye dafa amoon ñu ñun tudde woon les cadres communs supérieurs nuy ay fonctionnaires yu mag booba ñu duñuy jël ñooñu ay wagon spécial di ñëw di fekk Sidi Boubacar ak sama turandoo di màggal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba moom itam mu jóge fi en 57 ki xam ne moom itam baayam daf ko ni woon su màggee Alhaji Abdoul Aziz li ma bëgg ci diine yi bëgg ko ci mbokk gi bëgg ko ci bi danaa ko am mu toog ci xilaafa gi moom itam na mu ci tooge uuf ñëpp na mu ci tooge fab dàllam képp ku xam ni kilifa diine nga ci réew mi oto alxaaji abdul aziz masam moom ci boppam alxaaji abdul aziz moom fi jëkk dem tuuba seeti mbokkam magam ja xaritam ba nga xam ni moo doonoon xaadimu rasul li seydi mouhamadou moustapha mbàkke dem nuy ju ko woonoon ko sax ndar mu ànd ak sunu bàyyi ceenu Seydu Nuuru wax waxam ju mu toog moom itam ci xilaafa gi alaaji Abdul muy wax yàlla ne rasulullahi ne Cheikh ma Tijaan ne Alfaayi Mayoro ne Cheikh Umar Fuutiyu ne moom itam ak nag di toj mii baayam Cheikh Seydi Alhaaji Malick mas naa dem waxtaan ak moom ci benn problème mu ne Mansour ma ne ko si mun ma arbitre laa ci arbitre du far réew mi yëpp ku kilifa diine jox nga ko cër bu rëy ku kilifa aada jox nga ko cër bu rëy ku politicien jox nga ko cër bu ba fi Assane Dieng ñëwee nekk le roi du Maroc sunu baay ba sang bu de ba nga xam ne it mooy deuxième xalifa Xaadim Rasul nu laaj ko mu ne ah Abdou nga Ndakaaru bu ko Abdou jiitee incha allah Assane de dana wax ni ñii nooy ñen moo tax wax naa ci samay wax ni l'histoire tubaab dafa ni l'histoire ne se répète pas mais l'histoire se répétée avec la famille de Cheikh Sidi El malik ndax ba Mohamed si ñëwee ca ñu laaj ku ko war a jiite ki xam ni ma nga barzaq tey nekk ci xol yi di kenn moom itam ci kër sunu maam Cheikh Seydi Hadji Malick di Seydi Abdoulaye Sy Al Amine mën ko woowee dafa ni doomay baayam wax leen Maodo si rek mu jiite ci dëgg-dëgg Mouhamed Ciss kon kër Cheikh Seydi Al Hadji Malick ñëpp leen yoxoon cër Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum daana wax ni nun ñëpp lu ñu jox cër bii kenn kenn ku dul Sidi Boubacar Sidi Boubacar lu tax mu jox lu cër bi baayam rek Cheikh Sidi El Hadj Malick ak rakkam yu baax yi El Hadj Mansour ak El Hadj Abdou ak El Hadj Habib xam nga Cheikh Ahmed Tidiane si El Maktoum ko fi ambassadeur ba mu demee Égypte ci yóbbaale doomu gaynde ja ndeysaan Cheikh Kamal Abdel Nas doon ko laaj foo jànge mu nu ko Tiwaawan munu ko fu Tiwaawan ne wax protocole ba seetaleen na géographie fu Tiwaawan ne baru ko seetee gisuñu ko ndax Tiwaawan ne ko mu ko doo gis waaye daal ko di wax sëñ Babacar Si ak sëñ Alioune Guèye ak sëñ Seybatu Fall ñooñu noo ma jàngal Cheikh Ahmed Tidiane nekk ci loolu ba sunu baay Alhaji Abdoulaye Si jóge fii ki xam ni moo remplacé woon baayam Sidi Aboubacar remplacé sëñ Alioune Guèye ci njàngale remplacé sëñ Seybatu Fall ci njàngale moom lañ tudde woon borom daara ji moo daan wax ni teg lu sa lu sa wax ak lu sa maam wax ba jóge fi rakkam ju baax Cheikh Ahmed Tidiane remplacé ko ba jóge fi Seydi Abdoul Aziz moom itam remplacé ko ba tey sama doomu turandoo ndax baayam moom ma yar El Hadj Mansour baayam moo ma tudd baayam moo ma wutal place toog ci place bi moom itam jaar ci sëriñ bu ñuy wax Lamine Kebe Lamine Kebe nag ñu bari fii. même sunu kër maam xaadim rasul am na ñu fi daan ñëw di jël bind ci moom jàng alxuraan ci ku wax Cheikh Ndiaye maa béy alaaji maa béy Ndiaye xaalile woon di xaadi ca ndar jóge fi dem Égypte dem jàngi ba lépp lu xam ni doomu soxna warna ko xam ci lislaam mu xam ko daje fa ak mbokkam yu baax yi ñoom Maodo ak ca dëgg-dëgg Hajj Malick ak Maodo Touré ak doomu sëñ Bassirou Mbacké moom itam tey nag yàlla def mu toog ci xilaafa gi nu koy ñaanal naal yi xam ni baaye mi naaloon nanu ko fi ak maam ak magam yu baax yi naal yooyu yëpp yan na ko wàcce ba sibal boppam naal bu xam ni moom ci boppam moo koy naal moo koy wàcce bu ci des di gërëm réew mi yëpp nag nu jëm rek ci lu rëy ci réew mi soxla jàmm alxaaji Abdul Aziz bu baax ma yal na yàlla yokk leeram daan na wax ne lu dul jàmm-jàmm ko gën nuy ñaan rek ci lii nu jëm di le 24 février di élection présidentielle sénégalais yu bari bëgg nekk président de la république loolu sénégalais bu ne sañ ko man sax xam naa bu tànk yi baaxoon danaa posé sama candidature waaye li nu ñaan rek sénégalais yi mooy nu bañ a wax lu ñaaw bañ a bind lu ñaaw Lamine Gueye ak Senghor fi nekkoon doon xëccoo ak ngalanu lu ñu daan wax Lamine dàqal piccoo mu naaw ndax jabaram mu nga dëkkoon Guadeloupe Abdou Diouf dajeeg ab Abdoulaye Wade lu lu Abdoulaye Wade daan wax ana monsieur Moulin ana madame Moulin Senghor di wax moytu leen borom nel boobu yii de moo fi xewoon waaye bind lu ñaaw wax lu ñaaw sos lu xam ni du dëgg dootoo bàyyi kilifa aada bàyyiwoo kilifa diine bàyyiwoo sax njiitum réew loolu de du sénégalais sénégalais daal li ñu ko xamaloon bu njëkk mooy wax lu rafet ak def lu rafet nuy ñaan rek sénégalais yi li nu jëm di la 24 février ñun ñëpp nu ànd ceeg sunu sago xam ni buur yàlla rek moo koy sàkk nous ñu Ousmane Tanor mi remplacé Senghor remplacer Abdou du parti socialiste dana raw Moustapha Niass mi président AFP ancien ancien directeur cabinet du président de la République ancien ministre que nous Idrissa Sek, ministre d'État que nous le président des qui qui me le président de tous les Sénégalais maître Abdoulaye wad, ndax waaye boobu yàlla nee na Macky mooy ne président de la république kon nag jarul wax wax ñaaw jarul def lu ñaaw di gërëm nag waa télévision bu kii nag télévision bu bees la ah Mbour suivi xam nga nag département Mbour moom dafa rëy ci département yi di ñaanal sunu kilifa nga xam ni jiitu na Seydi Mouhamadou Mansour Baro ah ak say Modou Gueye muqaddam yooyu ak réew moom xam ne Alaaji Mansour daan na fa yàgg lool mi jur xalifa bi sunu télévision bii nag donc ah waaw non ñaanal yàlla dëgëral ko li xam ni senegal daanu koy déglu ni ñuy dégloo mbokkam yi xam ni noo amee télévision à travers le Sénégal ñu dem ba Sénégal yépp di ko diglu ya ama moom ci boppam moom mi sos lii ci alalu boppam yal na ko yàlla may gudd fan yàlla may ko wér techniciens ya xam noo fa nekk yal na leen yàlla defal jàmm ca yàlla tàppe seen xol ñoom ñëpp ba ñëpp ñu nekk benn maa ngi ndokkeel ñëpp nag ndax kër gii nga ñëw tey muy kër góor gi Amadou bay Maodo alaaji Mansour sëñ alaaji Abdou alaaji Habib min nunu kër gi lool góor gu baax googu xam ne sëñ Babacar si daawul añ mukk wala mu reer wala mu ndikki ci Abdoul Aziz Al Amin daw siwul ni ko sama pap rek lay nekk góor googu it yal nu yàlla tas ci barkeem ci daraje Cheikh Sidi Ahmed Tijani maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ci weer wi di ñaan réew mi yal fi yàlla def jàmm sunu baay alxaaji Abdoul Aziz daan na wax ne boo ëmbee boo amee sa ëmb mu nekk ci gaal sunu baay ne bul ñaan ëmb ba mucc ñaan rek gaal ga mucc bu gaal ga rek ëmb mu mucc li ziar ñëpp di balu àq ñëpp di ñaan yàlla bu mu nekk sunu mujj gàmm ci daraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon soor Mbaye ma caaga Fatim Ngoone dañu ñëw nag nga xamante ne dégg ko suñu micro muy Ousmane di koo xamante ne jarbaat la ci suñu papa Alaaji Mansour Mbaye yaayam ak moom yaayam ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay defe naa ne Ousmane ma lay jox kàddu rek nga daal nuyoo ci Mbour TV télévision bi nga xam ne boole bi ngay jàkkaarloo. ñu dugg tey ci guddi Jubli ci muy gudd Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ngeen fak fii fekk si sunu kilifa ñun El Hadji Mansour Mbaye nga xam ni ku ne xam na ko ci Sénégal ci wàllu diine ak ci wàllu àddina nga xam ni responsabilité yu rëy am na ko ci jëfe ko ñu ñaanal fan di ñaanal wér waaw. ana lan nga ñu mën wax tey suñu baay bi El Hadji Mansour Mbaye depuis bi nga ko xamee ba tey. li xam ci mooy baax li ma xam ci moom mooy bëgg njaboot li ma xam ci moom ndax moom dafa am lu mu donn donn ko ci baayam góor gi Amadou Mbaye Maodo sa maam fii ci kër gi tey képp ku doon jarbaatam walla muy mbokkam daf leen jëli ñoom ñëpp indi leen fii ci kër gi fi leen yaroo ñoom ñëpp ñii dem ba mën a samp kër jël soxna loolu rek moo leen fi jëlee moom nag bi mu juddoo nag nekk fii ci loolu rek la nekk mooy boole njaboot gi balaa moo kontaan nag mooy njaboot gépp daje ñun ñëpp ñu bokk ndey bokk baay xàmmewul jarbaat xàmmewul doom xàmmewul mbokk ñëpp àndandoo bokk ndey bokk baay loolu lañ xam ci moom di ko ñaanal rek li ma waxoon rek gudd fan di ko ñaanal wér waaw waaw Amla na solo def naa ko témoignage yooyu mënu lan ngay dénk nag njaboot gi nga xamante ni suñu njaboot suñu papa El Mansour Mbaye la. li ma di dénk rek mooy nit bu amee kilifa goo xam ne ci lu rek lañ ko xam dafa am responsabilité bu bu ko war li war mooy lan mooy xeentu fi kilifa yi doon jaar ñu jaar fa ñun ñi ñëpp am nañ responsabilité ci wàllu mbaax ci wàllu yaatu ci wàllu. bëgg lu baax ndax ñun du n'importe qui fii ci Tivaouane ñun dañ fi am responsabilité bu rëy mooy sunu maam góor gi Amadou Mbaye Maodo maam Hadj Malick radiallahu taala da ko jëloon teg ko ci wetam lépp loo xam ne ni mi ngi koy def wala mu ngi koy wax sunu maam moo ko daan def sëñ Babacar Sy Mansour fekk nanu itali nii dama ñëw ci seen njaboot samay njaboot yéen nag duma leen romb ndax lu tax mooy duma dem mukk Sénégal gis sama baay El Hadj Abdoul Aziz mu ni ma ndax gis nga xale yi ma ne ko dewuma ci ñoom nee na loolu ñemewu ko kon nag ñun am nañ responsabilité bu rëy boo xam ne ñun ñi ñëpp dañu war a xool ci suñu nijaay ji ci jikkoom xool ci jëfam xool ci lépp loo xam ne ni mi ngi koy def ci lu baax dellu siwaat rek di ko ñaanal yàlla di ko wax ni daal yàlla ko yàlla defal gudd fan yàlla defal ko wér ba nga xam li mu bëgg ci njaboot gi ci àndandoo ci bokk ndey bokk baay yàlla defal ko ko jërë ngeen jëf defe naa ne que nii la defe naa ne suñu Pape Mansour moom dañ koy ñaanal rek gudd fan ndax defe naa bu ñuy wax mbaaxam moom defe naa ne fi la ñu faraan nekk na repère nekk na référence dañuy ñaan rek suñu borom bàyyi ko fi ba mu jiite nag njaboot gi ndax vraiment bi mu ñëwee teeru nañu dalal nañu te loolu dafa neex lool ci xol man yàlla moo def dama ko bëgg lool sama xol donc vraiment maa koy ñaanal gudd fan ak wér yi yi nga xamante ni El Hadj Mansour mooy seen mooy seen ay ngi noonu suñu bàyyi lañ seet si woon fi mooy Tiwaawoon di leen dégg dee incha allah ci kanam de ak beneen célébrité jërë ngeen سعد من في دهر العظم زره زره إن جندا من خياف قد سرى هدى قلبي من خيال قد سرى قد سرى وسقاني قد جفا طيف الكرى ويسي من اللقاء من اللقاء